cant ngërëm ñeel na leen yéen ñi internet bi di net bi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi dañ koy doore kàddu yi nga xamante ne kii di maître Khoureychi Ba dal dina koy yëkkati rek ni ki démb nag ci samedi ji dafa demoon seeti ji kii di Ousmane Sonko foofu ca prison bu Cap Manuel moom leader parti bii di Pastef te ñu jël ko nag nasaxal ko mu nekk ab ni ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci avocat bi koy layal ne na nag kii di Ousmane Sonko ma nga ànd ak moral boo xamante ne rek moral bu am cawarte la waaye nag la mu daal di xam ne rek boobu les prison nag mën nañ ko jàppee rek ab bloc animal di kàddu ki nga xamante ne rek moom mooy maître Khoureyssi Ba la mu daal di xamlewaat ba tey rek kii di président Ousmane Sonko nag ginnaaw gis weer bi nga xamante ne rek gisee nañ ko ak moom niki démb ginnaaw buñ jullee takkusaan nag ba noppi rek dafay mel ni rek ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko nag tey la gën a am philosophie boo xamante ne rek philosophie dund la waaye nag dund bu àndut ak benn stress ginnaaw rek li nga xamante ne lañ ko daal di tuumaal euh, ba noppi mu nekk nag jafe-jafe yoo xamante ne rek war na koo wante waaye nag yëgalu ko nag benn yoon moom nag la mu daal di xam ne rek moo di ne fi nga xamante ne nag foofu la nekk sax daanaka nag rab yi sax bu leen fa yóbbu woon sax duñ fa nekk waaye nag dañoo préféré rek yóbbu fa ñi nga xamante ne nag moom ñooy politiciens yi moom nag la mu daal di xam ne mbir mu nu mel nag da koy gën a yokk jom gën koo motiver pour mu mun a xeex bu baax rek li nga xam ne rek moom la sumb naam fa mu nekk sax nit waru fa nekk di kaddu ki nga xamante xamante ne rek moom mooy avocat bi la di maître Ba ginnaaw bu mu waxee ne nag kii di Ousmane ci jaamu bu baax amul benn stress boo xamante ne rek dal dina koy déranger jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés close notification ngir amaat yeneen